aussi que am nañ benn invité aussi sur le plateau il s'appelle tout simplement Msilia moom woy na li nga xamante ne mooy féexal sa xol et mu nekk tendance loo xamante ne ñun ñëpp dañu war a féexal suñu xol dindi ay stress Pape Samba suñu mënee am clip bi rek après ñu revenir dundal happiness aduna boo ci nekkee di nga dégg lu ne di nga xam lu ne di lu ne geesu bu du tontu bu du soraale oto bu ci kanam lañu korneet borom yaay ju baax day fal di falaale Ibrahima Souri Diallo depuis Ornella allez retour sur ce plateau Samira euh, comme ni ma ko waxee sànq MC Liane ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi lay seetaan allo maa ngi nuyu Sénégal maa ngi nuyu Gambia maa ngi nuyu Worldwide maa ngi nuyu TFM. Mhm. maa nuyu plateau bi. Mhm. vraiment di leen wax ne kontaan nañ. Gambie donc mu nekk nag un jeune comme ni ñu koy waxee moom nag je pense que tey moom mooy représenter musique euh, euh, Sénégambia Music World fi nga mhm. xamante ne moom moo di euh, Sénégal et partout dans le monde waaye leneen li ma la bëggoon laaj rek ginnaaw son bi nga xamante ne moom nga créé est-ce que yaa ngi génne nga album ci lan nga nekk exactement. yaa am not album. <laughs> Yeah, I have uh, one album already. Uh, in the moment, ñu ngi job album international ak Jëli Ba Kouyaté. ak mm. some artistes are uh, from Guinée. Mm. yeah comme ñu ngi ñu ngi Sénégal ñu ngi ñu ngi Fune ñu ngi ñu ngi Mali. Mm-hmm. ñu ngi Germany. yeah but in the moment ñu ngi Sénégal di def suñu promotion album bi. But you know now I'm a Gambian, you know <laughs> a like our gay ma ma ma ma Sénégambian léegi Gambian laa ci e, e, e, yéen laa bokk booy ñibbi dimbali ma yóbbaale ma ndax Sénégal amaluñ ma njëriñ Pape Samba Thiam sonal dama donc ma euh, juste pour euh, poser la question à savoir pourquoi féexal euh, sa xol wala dafa jot Gambien yeeg Sénégalais yi ñëpp féexal seen xol waaw dama gis léegi dafa bëri stress trop da gis ku stress sax kenn du ko def dara mm-hmm. des fois sax nga dawal sa oto sax gis ku stress soo dafa jot time bi jot na pour ñu happy daal happiness daal soo ku nekk war na happy ñu kontaan xam nga mm-hmm. ngay gis si boo am ndaw bu ne ci yoon sax di décroisé soo life bu dee décroisé xam nga never give up mm-hmm. so always keep it up so one day is coming so man loolu laa gëm loolu lay wax anyone koo xam ne ci boom youth man la mu am believe in mhm. muy fii ak ca kaw ak ci suus mhm. so live noonu la imaan am nañ awa gay bu góor <laughs> <laughs> dafa neex euh, euh, Sénégal dañu bëgg Gambie gis ngeen diggante Youssou Ndour ak Gambie diggante Wally Seck ak Gambie mhm. diggante yeneen artistes yi ak Gambie Assane Ndiaye ak waa euh, ñoom aussi dañu bëgg Sénégal lu ñu xewle andil ñu ko mën nañu xaar les projets à venir fii Sénégal waaw non am na Sénégal projet yi incha allah dañ ko gis Sénégal parce que right now ñu ngi def ci boom TV Sénégal yëpp def di di présenter album bi ak Jëli ah. Ba ko ah, Jëli moom muy gars maa ngi koy bëggee papa maa ngi koy soloof yaa daal bu baaxal daf ma bëgg yi album bi mu ngi ci kawam mu lépp mu ngi ci biir vraiment di ci def saa su ne di ci def lu bëree bëree bëri di bëggee sama famille fële Saloum di bëggee ñëpp waram ki bëggee liyaa comme gaa ngi ci liggéey. Mhm. fi ne jaamaani xam nga ñoom seex bi vraiment su ma demee duñ xam nga duñ toog. Mhm. dañu nekk man ci affaire di ma xam nga di ma di jàppale ci. lu ne support baax mais est ce que yaa ngi nekk di def ay prestation ci yenn bërëb te surtout fi mu ne nii da nga ñëw pour lancer album bi est ce que Dakar am nga fenn foo xamante ne da nga fay jouer wala Gambia nga gën a basé wu. bi fa joué. non Dakar ma fi dee joué dama daan dama ci boobu seen maa ngi bëggee suma nijaay Moussa Ngom. ok ah. nijaay la mu nekkoon géejawaay. tey suñu nekkee woykat tey moom moo ngi gisee Afrique mbalax parce que dafa nekkoon di def représenté Sénégal bi musique bi. yàlla def ci boobam ñu nekk ay ndaw. Mhm. ñëw ci boobam di wane Sénégal bi musique bi. macha allah balaa ñu ngi ko yóbbu ci àdduna fu ne ci àdduna. am na ñu fa nekk den nag ah, mais duñ ne ci boobam du ma Ah, koo fa génn nekkatul fa because Déliba mooy suñ king comme lay di suñu maa ngi koy bëggee di ko ñaanal fanu gudd yé maam mu nekk koo xam ne li def ma mosto bu nice time mi ngi adduna bi mu tëj Mali mu nekk mosto boo xam ne ñàkk naa la boo demee suma boo de yow boo defee li yaa Déliba ko da gis ñàkk naa di maa ngi tëgg des fois seen set ma tëgg ci boobam ah, soleil café fële corne ma fi tëgg ak ñoom aada ah. ma mm-hmm. fa dee joué ak sama groupe mais comme ah, right now ñu ñoo ko tukki mm-hmm. après après clip bi nañu ñëw Sénégal de promotion bi après dellu Gambia mm-hmm. inshallah mais bëgg naa ñu dem Gambia Q City ñu dem def fa concert ah soo paree ñu dem fa inshallah <laughs> ñu dem Q City Sénégal <laughs> non man Banjul laa basé wu sometime Banjul sometime Germany sometime Mali because of ñu dañu représenté ñu dañ jël di ko wane ci ñu ngi play mbalax ñu ngi play afro manding. Mhm. Mhm. ñu ngi play ci ba afro kéemaan ah, macha allah rafet na donc ñu ngi nuyu waa Gambie bu euh, baax a baax a baax bëri nañ fay xarit d'ailleurs uh-huh. euh, bu ñu demee Gambie day mel ni ñu ngi Sénégal maa ngi nuyu kiyaa sama benn xarit bu nekk Gambie uh-huh. euh, la fin lan mooy sa kàddu bu mujj waaw comme maa ngi bëggee suma ñëpp di bëggee suma benn xarit Babou Mbaye kooku vraiment suma nit la di bëggee suma tons di bës mu ngi mu ngi France kooku kenn la ci man di bëggee sama famille bi nekk mel na sabax mhm. vraiment ñoom yenn luñu dañ ma jàppale ci lu bëree bëri vraiment dañu may xam nga waa Nguyaan xam Nguyaan la wàll gi Gambie la balax bi laal ko barak ji seet Touré sama jër bu ñaawul bi borom poste këré yi maa ngi koy bëggee di bëggee ñëpp ñoom Ibrahima moom vraiment Malick Diagne vraiment ñëpp maa di soolof di wax gars yi nii la xam nga jàppale dina baax jërëjëf merci beaucoup kontaan nañ ci yow bu baax a baax ci li ngi ñu àndil tey dañuy dem découvrir keneen koo xam ne mu aussi fekk si nañu fi tey ci euh, suba si li neex ci weekend start mooy non seulement dangay ngay découvrir ay talent mais ay talent yu wóor et di représenter la musique sénégalaise wala sax Afrique en général euh,